asalaamualeykum wa rahmatullah asalaamualeykum wa rahmatullah mercredi 24 avril 2019 ñu ñëw ak yéen ci yëglikaay su sunu làmb nag tey fa la ñuy xëy yëglikaay bi nag tey daal bi mu xëy fi mu ñëw mooy diggante Tafatine ak amaa Balde kay wax nag du kenn kudul dul kii nga xam ne nii moom moo di Abdou Bakhoum Abdou Bakhoum nag tey moom moo xëy di wax ci yëglekaay bi nga xam ne ni moom mooy sunu làmb la mu xam ne nag nee na fi mu nekk nii wala boog Abdou baaxum sax yëglekaay bi daal jàpp ne fu mu ne fi mu nekk nii daal li leer ba leer daal jàpp leen geer ba moom commencé na ko comme combat wa daal jàpp nañ ne taxaw na moom xaarul dara xëy na daal dal ci kaw tafaatin lam ko xamal daal lenn la nee na bis bu ñu yeggee ca làmb ja na jàpp lii moom moom tafaatin abdou baa xam ne ne ko balaa ñu laa daan dañ lay dumaa dumaa dumaa duma ba nga ne waa le ñu door laa jàpp daan la jël bu rëy nee na yoon moom loolu lañ koy def su ko defee wax ji mën a jeex fi mu nekk nii daal nee na combat boobu moom Abdou Bakhoum mi mu naan sa ama nee li ci des mooy ay quelques détails waaye mbirum kii contrat moom ak yu mel ni ki noonu daal nee na boo xoolee fi mu nekk nii daal boo xoolee lépp moom parce que jaar na ci aw yoon wala bu amee lu des tam tuuti lay doon waaye daal loo ci mën a dégg moom diggu na tafaatin bu baax a baax moom abdu baaxum keneen koo xam ne nii wala boog ka nga xam ne moom moo yor tafaatin mu wax ak baaxum naan ko teeyal balaa ngay diggu day fekk dara sotti ndax nag pap cun nga xam ne mooy asaawu tafaatin moom la mu xamle daal mooy li leer ba leer day boobu combat des na de pour ñu finaliser ko moom des na bu baax a baax pap cun moo xëy tey di wax loolu ci yëglekaay bi nga xam moo di suñu làmb kenn koo xam ne ni moom bésam finalisé na ko ba daan mooy soq bu xam sa cosaan ba mu daanee nag ka mu dëkk wala ka mu def yi mooy lagros bu fas soq daal nee na ko lagros génnal fii nag nga ñëw ñu defante bëree loolu la soq xëy tey di ko wax ñii moom seenum combat bëri guñ ko waaye taxaw na mu mel ni kii nag suñu làmb ngi yëgal ne jàpp leen Eumeu Sène ak Modou seen ñaareelu jàkkaarloo tey lañ koy amal ñi 21 heures fa nga xam ne mooy ca 2STV làmb xëy tey dinu ko wax ñeneen ñoo xam ne moom seen combat taxaw na ñu war a bëri dimanche muy diggante Garga Mbossé ak Moussa Ndoye bu yaraax sunu nu ne na jàpp leen Moussa moom tey lay def open press am jàkkaarloog taskatu xibaar yi wax kàddoom gu mujj suba ca alxames ja Garga Mbossé moom itam gontoo ko ca parcelle wax seen kàddu gu mujj balaa ñoo yegg nag ca bésu dëgg ba muy besu bëre ba jàpp leen leneen loo xam ne ni moom promoteurs yi la soxal wala ministère wala waa CNC jàpp leen mooy arène nationale bi nga xam ne tabax nañ ko ba mu ne jog li leer ba leer nag yëglikaay bi na lii daw la ko promoteur yi def wala boykot wala abandon lu ci xew wala boog dañoo geref ngir bañ a tey dem ci arène national bi mu mel ni ki nag yëglikaay bi nee na CNC day ñu ngi leen di xaar ngir boob ñu indi dëgg wala boobu ñu indi promoteurs yi maanaam ñu indi leen à la raison maanaam wax leen li xew wala boog Matar Ba mi yore sport bi moom moom itam question bi ndax waru cee mën a ñëw tracé ko maanaam teg mbir yi ci aw yoon suñu làmb xëy tey dinu wax loolu leneen loo xam ne itam fekk nañ ko ci fii nga xam ne nii moom moo di ci yëglikaay bi nga xam ne nii moom moo di sunu làmb moo fa tam mu nga xëy tey di wax ci diggante Garga Mbossé ak kii nga xam ne moo di Moussa Ndoye nee na Moussa am na tuuti avantage ci kaw kii nga xam n nii moom moo di garga mboose yëglikaay bi moo xëy séq ak moom waxtaan muy wax loolu moom Mor Fadam keneen koo xam ne moom xale la espoiru lamb mu nga xëy di dëkk adversaire am mooy Kalmu nduur mu koy wax Grand Mbagnick moom daal ña mu teg bët nee na mbayti numéro 2 bu école de Mor Fadam wala gàmmu géey bu tëngéej nee na ñii daal ku ci ñemee génnal lekk sama avance ñu defante moom Kalmu nduur moo xëy tey di wax loolu waaye dañuy dem Les ko Les ko nag Gris Bordeaux lañ fa fekk Gris Bordeaux troisième tigre de Fass Gris Bordeaux kiñ na fi mu nekk nii daa mel ni moo jiite les leaders en activité léegi nag Gris yokk na ca leneen yëg nag Gris léegi consultant la fa nga xam ne nii moom mooy ca Walfu teef Walfu TV da xam ne émission lamb dafay am Pape Aline di ko animé mu mel ni nag Gris Bordeaux nag léegi ab consultant la foofa daal mu mel ni ki ci fan yi ñu jëm day ci la war a njëkk a commencé def li nga xam ne moo di première émission léegi ko moo xëy tey dinu ko wax leen loo xam ne moom sunu làmb nu ko wax muy lu doy waar nouvelle boo xam ne day neexul dal ci kaw làmb muy ma xari mbeng ñu xamoon ko mu nekkoon fa nga xam ne moo doon écrit face te dëkk parcelle yëglikaay baa ngi ñuy day dafa génn àddina wuuju suñu borom fa mu ko dale nag mooy fële nga xam ne moom mooy ca fa nga xam ne mooy ca sabadola yëglikaay bi moo xëy tey duñu ko wax mu mel ni nag sunu làmb ngay leeral nee na keneen jox boobu xibaar nag mooy Boy Naar ba nga xam ne ab xaritam la bu yàgg ñu yàgg ànd te Boy Naar nekk léegi ca Paris ñu mel ni ma xari mbeng moomu daal loo ci mën a dégg nu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te jéggal ko moo bépp jullit bu mu fa fekk ak ku ko fa fekk yàlla buur bi daal muy ñëw ki dogalam ci saa su ko neexee ak nu ma ko neexee waaye lu ci mën a dégg yàlla na buy ñëw fekk ñu ci lu baax waaye yàlla na bu ko defee itam mu ànd ak njéggalam ndax nag njéggalal yàlla kese ak yërmandeem moo xaj ci doomu aadama taala njaay gërëm di leen sant Babacar ngeen àndaloon si revue de nu ànd ak yéen si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu. fay naa la Ndeye Coumba di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ñuy suivre ci Leewtoo TV fu ñu mën a nekk si àddina bi rek leen wax tamit ne nañ leen bu baax a baax a baax a baax internet yëpp ah nuyu nañ leen ziar leen ñaanal leen jàmm di ko saxu si ñoom Ndeye Coumba Fall. Amin Babacar nu ñëw ak euh, sunu mbokk internet yi si euh, euh, sunu làmb tey ñëw na Abdou Bakhoum manager Ama Baldé ñëw na si combat bi combat bi gaa taxawagul waaye moom dafa mel ni commencé na def bataille psychologique comme ni koy waxee neen su Ama jàppee Tafa dina ko dóor dina ko duma dina ko dina ko def daal lu métti daal. waaw moom sax boo déggee si ay waxam dafa mel ni moom combat bi moom bu dee seen côté moom taxaw na ñoom yaa ngi dégg ah, comme loolu mu wax nag. Euh, manager bu ne yore sa mbër am nga droit taxaw kat bu ko yaakaar ne kii sa mbër mi kii la war a bëreel nga wax yow li nga bëgg ak li nga yaakaar ne moom nga war a mën a def ca bés booba ak li ngay ñaan loolu pour man noonu laa ko jàppe wax jooju sama mbër dina la duma ba pare door laa daan ah, ku ne mën nga koo wax parce que li ñuy wax rek dañ ne ñaari ndamay dugg mais benn mooy génn comme ni ko suñu papa Maxime Ragane di waxee lool moo ci nekk diggante Tapha Tine Ama Baldé nag lu fi jaaroon la ñu bëggaan mu jaaraat fii yaa ngi dégg nag am yàqin ne mu gën a neex na mu na meloon bu jëkk ci côté ambiance ak ci côté parce que fi ñu tolloo la ñoom ñaar ku ci ne tey màgg nga ci làmb tafaatin bi ko ama daane am na lu mu jàngaat ba tey fi mu taxaw fa ama itam bi mu daane tafaatin yemu ca dafa confirmé waat wane waat boppam ba ñëw tey taxaw fi mu taxaw abdou baaxum nag c'est le ménage de ama li mu wax noonu pour man mooy xalaat mooy waxam loolu mooy ay droit am mais comme li ñuy wax rek yóbbante galgal ubbul làmb mais loo ci Ama Baldé amul mbër mu mu mënta daan ci làmb ji actuellement xanaa ku bañ a jël avance am yaa ngi dégg Tapha tamit amul mbër mu mu mënta daan parce que ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk boo leen xoolee li tax ñuy wax mbër mu ngi ci yow dafa fekk ne nag bis bu amee làmb jot arbitre siffle il faut am ku ñu daan am ku daanu mais li am ba solo daal ba am solo mooy nañu fexe combat bi taxaw yeneen combat yi ci des taxaw pour que saison bi mën a neex nday ko ma fal parce que ñoom ñaar ñëpp ay mbër waada lañu su fekkee ni waa <clears throat> euh, maa ngi jégalu su fekkee ni waa Pikine ñoom pare nañu dafa mel ni côté euh, Bawol moom des na ndax ki nga xam ni mooy agent wu euh, Tafatine muy Pape Thioune moom nee na des na lu bëree pour combat bi taxaw. waaw loolu moo lay wan ne rek combat bi taxawal ko yombul combat bi taxawal ko yomb parce que tamit làmb yaa ma gën a xam ne muy doxe ndey Kumba Fall am na yi nga xam ne nii tey mu ngi ci biir yoo xam ne ay lees waxul lañ lañ koy tuddee yaa ngi dégg ñoom waa kër Tafatine. comme niñ ko ni waxee noonu ko Pape Thioune boobu waxee ah ñoom ci seen côté des na pour ñu finaliser ko ma parce que am na lu des ah loolu des nag yàlla na bu fekkente a am rek adversaire nga bëgg a bëre ak moom wala nga bañ a ak moom wala côté finance pour man enjeu yooyu mooy taxaw parce que bu dee enjeu finance bi maanaam lu lay fay la 1000 francs laa la mën a fay nga ne man 1500 laay bëre ngeen discuter ci loolu ba ngeen di trouver solution wala sportivement amal na ma njëriñ ci cadre sport su ma daanee lan la ma mën a jural su ma ko daanee lu ma mën a jural yooyu yëpp tamit staff technique bi ñoom ñoo koy xool foofu nag combat des fois dina fa kale wala beneen bi ci des xëy na kon ci côté promoteur te daa mel ni promoteur bi ko bëgg léegi actuellement muy Pa Abdou Fall moom dafa mel ni bu dee ci côté moom daa mel ni foofu problème amu fa kon xëy na waa kër Tapha ñoom ñoo am lu waaw. ñu mm, ah, ngi des encore ak Pa Abdou Fall ndax euh, tey day ak ñaari mbër yi mu tëgg pour pour dimanche dañuy def euh, tey open press euh, tey nag kii mooy recevoir Moussa Ndoye Yaraax suba Garga Mbossé Parcelles Assainies ci école unité trois waaw loolu moom mooy li am Pape Abdou Fall ba tey moo tëgg loolu ñu koy ñaanal journée boobu le 28 boobu yàlla defal ko ci ndam mu réussir ko parce que combat bu mag a mag la tëgg ñu doon xaar mu yóbbu ko arène nationale wala feneen sa fu ko ëpp tey mu indi ko Iba Mar Diop kon yaakaar naa ne tamit yàlla na ci génn ak jàmm euh, Moussa tey yaraax Moussa Ndoye nag nekk na mbër moo xam ne mbëru gox la ndax gis nga bu génnee ni muy duyee stade yi ak ni ko waaye rax di toppee kon tey defe naa bu def open ku fa dem rek di nga gis lu doy doy waar ci wàllum cosaanu léboog yu mel ni ki noonu li ci des mooy tamit mu nekk ci lancé bu doy doy waar moom Moussa Ndoye bëgg ko continuer ci kaw Garga Mbossé ndax dina yomb wala du yomb loolu dimanche lañ ciy xam dara suba tamit comme ni nga ko waxee ca ci alxames ji jeudi maanaam fële ca parcelle Garga Mbossé mooy ñëw ko open press am Garga mu nekk nii lu war ci kawam parce que boo xoolee ren parcelle ni ñu ko waxee rek ndey gumba seen grand combat yëpp ko perdre la commencé ci Modou Lo ñëw ci ñoom la Pythagore euh, waaw boo xoolee seen mbër yëpp ah dañu ñàkk seen combat kon tey Modou am na wala boog ki nga xam ne mooy Garga am na lu koy xaar dimanche mu mel ni diggante Garga ak Moussa Ndoye moom bu ñu def open press ba pare nag arbitre suuf li des ci vraiment ndey dina nekk combat bu méttee méttee métti waaw. tey aussi am na combat euh, jàkkaarloo face a face bi bi nga ci diggante Modou ak Eumeu seen combat royal bi tey la am si 28 heures si sur la 2S. waaw loolu tamit dañuy mën def lu dul balaa ñu siy dugg sax félicité ki ko jëkk initié tegu ko muy Moustapha Diop borom OK Africa parce que ku yokkul yaa wàññi bi mu ñëwee tamit yokk na lu nga xam ne waa làmb dañ noonu bi a def seen deuxième maanaam ñu benn ci benn hôtel ah, ngi koy xaar te soreetul waaw mois de juillet la ëmma am na lu ko war am na lu koy xaar xam na ko ñuy profité di ci nuyu stafam boobu yaa ngi dégg gaa yëpp ñoom lañ jàng ak gaa yi ko wër daal ñoom ñëpp duñu leen fàtte Modou Lo tamit am na lu ko war te yaakaar naa it xam na ko te combat ba soreetul kon jàppal ne daal ñaari mbër yooyu moom seen combat ba itam ndeysaan ki ci daanu rek laa yërëm muy Modou ak ëmm di profité di nuyu tamit waa kër Modou Lo yi rawatina ku mel ni Ibou Laye waaw waaw kay ter ngaa nuyoo de doo xam fu ngi tëj nu des nu daw dem euh, si journal Les Échos Les Échos ni ngi xamal ne su fekkee ne euh, Tapha Tine ak Ama Baldé ni ngi négocié seen combat ñee ñoom négocié nañu seen combat ba ni ngi xaar avance muy diggante Gris Bordeaux ak ak Bombardier ñoom ñaari staff yi ñoom daal nee nañ ni ngi toog di xaar daal Pape Thialis Faye boobu ba léegi xamu na la moo ko téye. ah loolu moom euh, maanaam. moom mooy gën a place ngir wax ci muy Pape Thialis Faye parce que moom moo tëgg ko moom moo doon wax combat bi ba ñaar staff yëpp négocier ko ba ñoom ñu d'accord koo bëreel kon moom ci côté am la dese xëy na moom dina jéem a génn wax nit ñi lan moo tax mënul exécuter loolu nga xam ne entamé woon na ko muy projet xamuñu lu tax xëy na ci kanam dina ci indi ay leeral parce que tamit comme ñoom ñi ko seq pare nañu noonu rek la war a demee pour man moom war a mën a ñëw tëgg combat bi su ko tëggul tamit benn yeneen promoteur a ngi fi ndax tey bañ d'accord mais tey

ñu des tamit si les échos kii nga xam ne mooy Gris Bordeaux dafa mel ni mu ngi euh, bëgg topp tànk Moustapha Gueye nee nañu euh, consultant la fee si Walf TV et semaine prochaine lay commencé di ànd ak Pape Alioune ci di si si émission boobu euh, di daw si si làmb si si la Walf TV muy émission làmb ji nee nañu daal foofu consultant la fa léegi. waaw loolu day duñu ko ci mën a def lu dul ah wax ko daal ne que tamit Gris doo mbër la yàgg na ci làmb koo xam ne mën nañ ne les années 90 parce que bu ko waxee abal ay 96 jëm 97 jëm si suuf la dugg si làmb di bëre comme mbër ñu xam ko kon tey bu nekkee ci làmb ba ñu nekk ci 2019 bi yaakaar naa war na mën a nekk consultant wu làmb parce que dund na ci lu ne ci bëre bi moo xam mbapat bi la moo xam li avec frappe bi la am na ci ndam yu ne waaye tamit am na ci defet bu ne kon loolu tey bu ko waawal carrière am yaakaar naa jeexagul ndax ñu ngi wax ay combat comme sa carrière jeexagul nag boo nekkee consultant loolu man dina ma waaw dina xaw a kii waaw dina ma xaw a parce que tey euh, adversaire yi nga war a dajel ñu ngi ci làmb ji sa combat bu taxawee nooy def yaa ngi dégg ay poulain tamit seen i combat ak yeneen poulain jaambur yi waaw moom mi def parce que Gris euh, nekkul dof comme na moom mi ko def xam na lu tax mu si loolu mu dugg moog waa Walf yëpp daal Babacar nu jeexale mbirum arène nationale euh, amateur yeeg euh, askanun làmb noonu laajte euh, arène national tabaxal nañ lañ ko Euh, presque 32 milliards mais bu ñu ko fa taxawalee ba léegi coow li bëri na nee ñu charge yi bëri na presque un million 500 mille sécurité 500 mille location coow daal bëri na soo seetloo sax benn promoteur bëggu fa dem euh, ko aussi euh, mbëri sax sawaruñ fa di fa dem aussi promoteur soo la waxee ne wàllum sécurité mbirum arène nationale daal dafa mel ni coow bi ba léegi daal jeexagul ñu ngi laaj nag CNG ak ministère des sports Matar Ba pour nu nekk arbitre pour mën a xool waxtaan ak ak promoteur yi wala boog askanu làmb waaw loolu daal li ñu si mën a wax mooy ah ñun moom si li ma fàttale ko yàgg naay dégg ñuy wax coow arène nationale dañ ko war a am ne Senghor ñëw na fi ba dem defaluñu ko Abdou Diouf noonu Abdoulaye Wade noonu Macky Sall nag bi mu ñëwee yàlla def na mu pose première pierre ñu toog ne ñu ne déet na waaye ñu tabax arène nationale ba jébbale caabi yi ba ñu joxe ndigal ñu commencé caa bëri li nga xam ne nag pour man mooy teq-teq bi pour man foofu waruñu faa taxaw parce que xam tax waruñu fa taxaw problème la ñu wax 500000 francs pour lo pour pour pour estat ak 500000 francs pour sécurité muy 1 million. bu fekkente ne dañu jàpp ne loolu dafa diis pour man ñi ko seq moo xam ministère des sports bi nga xam ne moom moo yilif lépp luy sport ci réew mi CNC bi nga xam ne moom lañ dënk lépp luy làmb ak promoteurs yi war nañu mën a toog ak composantu làmb yëpp ñu waxtaanaat ci xool prix boobu nuñ koy ah, defaree ba nga xam ne nii dina mën a arranger problème parce que tamit li tax mooy euh, euh, promoteurs yi am na ay combat yu ñu tëgg yoo xam ne nii am na combat boo xam ne boo ko tëggee fere woo ci un million nga retourné fay un million fere mën na metti mais lu ci mën a xew rek am nañ arène nationale boycotté ko wala bàyyi ko pour man du solution solution bi mooy waxtaan ba xool nuñ koy entamé nuñ ciy bëre ba nga xam ne kenn du ci gaañu ku nekk man cee gis sa bopp yaa dégg pour man loolu moo ci am démb dégg nga yaakaaroo tamit waxtaan bi waru woon jiitu tey li ñu leen teg tey prix yi ñu leen teg waaw bien sûr waxtaan moo waroon jiitu parce que waxtaan lu mu jiitul rek yàqu yàqu mën na caa am bu def nii sax dañ ci dañ ci waxtaan ba ko mën a bu ñëwee nga toog ma toog ñu def ko dégg kenn du ci dégg loo mën a jëriñoo lu mu mën a doon ci àddina dañ ciy toog ci taabal waxtaane ko ba tënk ci lay njariñ teg ko buñ ko jëfee nga xam ne bu keroogee dina am nit ñi njariñ wala boog bu ca njuumte amee du doon njuumteel kenn nit ndax bu mbooloo mi boo boo bu bëggee dugg si dara waxtaan ak ay nit ñu jox la feu vert nga def ko boo juumee dootul metti mais li garaaw mooy jógal sa bopp yow kese nga defal sa bopp man dama gëm ne comme loolu nga wax waxtaan waroon am balaa ñuy def lii nga xam ne nii moo am comme nag bay wéy na mbuus yaa ngi dégg li des mooy léegi nañ retourné waat en arrière waxtaanaat pour que mbir mi nekk li nga xam ne nii daal njëriñ la parce que arène bi nag vraiment defar nañ ko mel na ni mu war a mel te tamit euh, war nañ fay bëri tout le temps war nañ fay parce que suñu la ñun ñoo ko moom ñun waa jërëjëf Babacar si kàddu yooyu leen di tàggoo di leen jox dig daje suba incha allah di nuyu sama xarit Aïcha Faye di ko wax ni que na yaram bi féex mu dellu si waat si si liggéeyam di nuyu sama yaay depuis Mauritanie ak sama pap di nuyu Jobbe samay cousines yi nekk foofu noonu di nuyu sama doom Mohamed ah, di nuyu aussi da Gueye di ko wax ni tamit yëre bi rafet na lool. waa Dadi maa ngi koy ziar ah, di ko wax ne waa noonu la rek mbir mi moom boo ci nekkee yokk sa loxo rek lu mu gën a métti waaw xeexu xeex moom na koros yi jóge fu ne rek di dal. bul bàyyi dara dari noonu la Aïssa ñu ngi koy nuyu Aïssa ñaa madame am Aïssa Faye a a sa série Babacar di nuyu njaboot na ko yàgg a at yu bare bari bari ko yonente bi sallallahu wa sallam di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi ñuy bu baax baax fu ñu mën a nekk mais kenn koo xam ne sama jigéen la di ko ñaanal feetu pak bi ñu génne yàlla nañ ko yàgg a feete ay at yu bëri muy ki nga xam ne mooy Louis Senghor madame Diouf série docteur Macoumba Diouf Macoumba di sama mag di sama xarit di ko nuyu daal di nuyu jabaram di nuyu ay famem yëpp di nuyu waa Lat Mbengue parce que kooku mooy meeru Lat Mbengue mais sama xarit la di nuyu tamit sama meeru commune maître Pape moom itam di sama xarit bu baax a baax mais tuuti yaay Sarr du ko fàtte mu ngi nii taxaw tey def gune def jin lebi sama simisam takk ay lu tam jaan ak ngoy wala waaw ngoy ngoy la ngoy la ndaag dëkk muy nuyu waa ngoy yëpp <laughs> ndey ko di leen nuyu di nuyuwaat encore une fois waa ak yaay daal du ma leen fàtte sama dëkk parce que nag bool bool laa di kaw kaw du mën a ñàkk foo ma leen di nuyu ndey ko ma olof ne na li nga doon boo ko bañee da nga caa gën a ñaaw je suis pire bawal bawal si suis fier d'être mauritanienne kon jeex na <laughs> waaw tamit tey waa Kine ñu ngi lay nuyu bu baax baax di nuyu sa borom kër Alaaji Mbay borom Italie wala Espagne waaw Espagne Alaaji maa ngi lay nuyu bu baax a baax Alaaji Mbay di la wax ne yéen amuñu seen fay ñu ngi leen di nuyu yéen ñi nekk Europe yëpp ak États-Unis fu ngeen mën a ne ci àddina bi mais tamit di fàtte loo xam ne xëy nañ liir ko sunu làmb muy desewuma Karim Mbeng nga xamoon ko muy mbër nekkoon si làmb ji bokk écurie yàlla jëlee ko fi comme niñ ko gisee tey ci fale mu nekkoon ci Sabodala di fa daan dooleem di ko ñaanal yàlla yërëm ko xare ko aljana waaw vraiment di wax ne daal loolu moo am si àddina kullu nafsin saayxatin mawtin fa kullu man alayha faaniya loolu waxee sunu borom la te du ma sa dañ amin